salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen chaire bu baax tey jii nag ñu am yéene pour waxtaanee lenn ci li nga xamante ni wax dëgg yàlla lu sonal senegale yi la lu sonal askan bi la. yéen nag waa télévision bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw fii di ñu laaj ñoo ngi leen di déglu ci lépp lu ngeen ñu laaj rek incha allahu rabbi ci feebar bii ngeen wax ni moom ngeen am yéene pour waxtaanee ko muy feebaru mauvaise haleine ñoo ngi leen ci déglu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرجف سرين توبا جراو لك مام شيخ إبراهيم فال لام جرجف مام واو ديفينيشن موبيز ألين مام موي أليتوز موي خطو جيمين بيان خامني نيكي نيكو ولا أنتراجم دان كي فرال دي سانتير لين خامنتين دال دفاي اندي خط بيان خامنتين دال دو نيخ موي أي إنفكشن بيكو دانتير لولو إنفكشن بيكو دانتير نك بولين كي ديجي من نك أي إنفكشن ولا أي بكتيري ولا أي ميكروب يين خامنتين نيكي دكاي أم تي جيمينم

te itim dafa laaj un traitement bi nga xamante ni général parce que mauvaise haleine dafa nekk feebar bu yaatu feebar bu yaatoo yaatoo yaatu yaatu li ko mën waral te nit dafa bari lool te xam naa ne ci biir émission bi boo leen ñu dégloo ngeen teewlu ko di mën a comprendre lan moo koy waral dëgg dëgg dëgg ci doomu aadama. waaw jërëjëf Mamran ah, mauvaise haleine nag dafa bari trop ay forme comme ni ma ko waxee léegi ñenn ñi seen mauvaise haleine ci gémmiñ gi lay jóge ñenn ñi seen mauvaise haleine ci put bi lay jóge mën nañu am amygdale am ñi nga ne dañu am angine ci put bi am na ci nga xam dañu am ay grain yu nekk ci biir put bi bu ñu yeewoo soo génne ko buñ ko génnee dañuy génne ay grain yu weex tàll buñ ko tojee muy mel ay doomi ceeb buñ ko tojee muy am xet bi nga xamante ne daal ñoom seen bopp sax du leen neex te grain yooyu buñ ko gisee ay infection la maanaam dajale na ay bactéries yu bëri ci ñoom ndax am na yoo dañu am poche fii buñ fa lekkee lekk bi dana fa des ñaari fan ba ñetti fan lekk boobu day dem bëri day nëpp di am xet am ñoo xam dañu am ulcère am ñoo xam dañu am estomac am ñoo xam dañu am reflux gastrique œsophagien am ñi nga xamante ni itam dañu am hémorroïde ndoxum siti loolu yëpp dafa bokk ci forme yi nga xamante ni dafay provoquer mauvaise haleine maanaam fu mu mën a jóge ci nit bari na am na ñoo xam te ne xet googu day dem ba nekk seen yaram maanaam day nekk ci seen pokataan bu ñu sangoo sax quelques minutes après rek bu ñu ñaqee xet bi day xeeñ seen suufu tànk day xeeñ ma baal am ñoom te ni seen seen diggante tànk yi ci suuf dañuy gis ni day retax day xóoñ day am xet moom it kon xet dafa nekk li nga xamante ni ci nit lu doy waar la da ngay déranger nit ñu bare bare bare bare te nit ñooñu am mauvaise haleine ñenn ñi xam nañ ko ñi ci des xamuñu ko te ñenn ñi sax dañ leen koy dem ba di leen ko jànnee wala den leen ko jëwee wala den ko waxee am na xam te ñu am feebar duñ ko xam mais nit ñi dañ leen koy xoole te duñ leen ko wax te loolu yëpp dafa nekk ci li nga xam ni lu ñuy faral di gis la allo salaamaaleykum waaw Serigne Lamine Bara Fall waaw man la Ibra man la Ibra laay dëkk Cambérène 1 waaw traitement Mouride bi kontaan naa ci kontaan naa ci bu baax a baax baax parce que sonoon sonoon naa trop trop trop sama bi da doon jooy mënatumaa dem ci xew yi mënatumaa dem si ngénte yi man wax dëgg yàlla daal suñ bi kontaan naa bu baax a baax Mouride Alam bi sonal na ma trop trop trop trop sama biir bi da doon jooy ak lépp léegi lépp macha allah sëñ bi maa ngi lay sant nag bu baax a baax di la gërëm di ñaan yàlla mu bu baax a baax a baax Maurice Alain bi daal sëñ bi solo na solo loon la ma lool lool lool lool waa ji mënatu maa na dem fen fen fenn kër gi sax mënu ma ko a génn wax dëgg yàlla mais instant yi daal sant naa bu baax a baax sama biir bi da daan jooy itam sama biir bi da daan jooy sëñ bi mënu maa mënu maa na dem fenn wax dëgg yàlla sant naa bu baax de jërëjëf mënu maa wax sax jërëjëf sëñ bi. waaw Mame loolu moom. lu neex a xam la ndax. kenn ku ci nekk xam nga sa bopp waaye ku ñëw def consultation ci suñu cabinet ñun niñ koy xamee bu dee ñun la exactement dañuy poser une consultation def une bonne diagnostic bu ñu poser consultation boobu def diagnostic bi ci la ñu mën a xam lan moo mën a indi gàllankoor boobu ci nit def consultation bi def diagnostic bi am na ay petit travail ñu lay def loo am na ay exercice ñu lay def loo nga ngaa ñu identifier ko ba xam ni réellement euh, mauvaise haleine ñaareelu mbir boobu bu ñu jógee ci loolu itam ñu xam ba xam fan la mauvaise haleine bi mën a jóge ci moom bu ko defee bu ñu def euh, traitement bi ça nous permettra ñu xam exact fan la nekk waaw jërëjëf membran ci wàllu wàllante nag wàllu contamination ak mauvaise haleine am na ndax wax nañu ni am na infection yi nit di am ci gémminam wala infection yi nit di am ci yaramam yi nga xamante ni mën na wàllante ndax feebar yi am nañu yenn nit ñi nga xamante ni bu ñu amul yenn hygiène de yi ci seen bëñ wala seen i gémmin duñ ko toppatoo bu baax nag ma baal ci kàddu gi buñ la fóonee sax le fait ñuy foonante boobu rek mën na la wàll feebar bu ñu wax feebaru mauvaise kon nag am na yi xamante ni bu la rek mën na dem ba yooyu coincé wu ci say plaque dentaire day dugg say diggante bëñ te mën na dem bay lakk sa bëñ xalal sa bëñ sa bëñ day dem ba jaune wala sa bëñ day dem ba xonq cur wala ci yenn ndox yi ñi naan échangeante yenn ndox yi dafay nekk li xam te ne dafay mën a wàllante mauvaise haleine waaw jërëjëf Mame Rane waaw mauvaise haleine moom ni muy manifesté woo euh, xet bu naqadi rek di wax ak ay nit nit ñooñu di dëmmooyu di la wan ginnaaw ngay wax ak nit muy tëfli ngay wax ak nit da santé nit yaa koy déranger mu jël yéreem tax ci bakkanam wala tax ci gémminam nga xam ni kii vraiment euh, am na odeur buy manifesté dafay dem ba yàq seen àddina dootuñu mën dem ci xew dootuñu mën dem ci mbooloo ñenn ñi yàq na seen sëy ñu yàq na sax seen liggéey am ñoom tamit dañu amoon relation lool ak doomu aadama yi di nekk ak nit ñi di jaay di business nekk ak doomu aadama yi nit ñi bëgg leen ñu bëgg leen mais dem na ba mënatuñoo ñeme sax dugg ci ñi fu ñu toog rek xet bi dafa leen di déranger dañ koy sentir am na ci ñenn ñi xam te dañuy dem ba ba ci barabu hôpital yi wala yenn structures yi mais dañ leen di jàppee dof dañ naan yow rek yaa koy xencu te fekk dafa laaj une diagnostic dafa laaj une bonne diagnostic bi nga xamante ni yow aji fajkat bi soo amul temps malade amoo ci moom yërmande toogoo dégluwoo ko xooluloo ko wala maladie bi bi itim dafay bëgg di wax rek te du def consultation bu approfondie parce que yenn feebar yi boo ko amee pour mu am résultat il faut faire une bonne diagnostic nga xam te ne dafay approfondir ndax diagnostic bi soo ko li la war yow malade bi def ko kii fajit li ko war mu def ko kenn ku ci nekk da nga am sa waar fajkat bi dafa war a déglu malaatam malade bi itam warul def automédication maanaam déglu jël garab yi baax na barab baax il faut ngeen seet ay spécialiste ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci loolu malade bu nekk wala façon malade bu nekk ñun gis nañ ko on a beaucoup beaucoup beaucoup d'expérience à ça te képp ku ñu koy jox traitement bi itam un traitement général complet lañ lay jox yàlla defal la ci tawféex ci kàttanu yàlla. salaamaaleykum sëñ bi li ngeen ne mbaa yéen a ngi si jàmm bu baax maa ngi nuyu di leen jaar lu bëree bëri te ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen. dama déggoon sa publicité si télé bi si laa jëlee woon sa numéro pour affaire mauvaise haleine yi man daal daf ma sonal trop wax dëgg yàlla jaaxle naa fu ne dugg naa fa boros ak. Euh, façon boros bu ne pat bu ne jënd naa ko bain de bouche ak lépp alhamdulilah sant yàlla sonnoon naa de li ma doon dund ay at mauvaise haleine mu sonal ma witt witt witt billaahi dem naa ba mel na ku dof sax su ma seeni ni sax balaa may egsi si man laa koy nuyu wallaahi mënuma sama yitte yépp laa daggoon wallaahi azim sonnoon laa def fu ne dem naa fa li ma jënd si ay bain de bouche pat buñ ne baax na pharmacie ma jënd lu ne laa la wax wallaay ngeer sax lu ne luñ na baax na rek ma baxal sax di ko def ay benn buus ak lu ne waaye mauvaise haleine fi ñu toll nii de alhamdulilah sant yàlla ba balaa may ñëw si yow sax sama jëkkër butéel bu man ma indil bi ma naan butéel ba muy bëgg a jeex bu mel ne daa a yokk wóor na yàlla ma découragé si laa doog xool ma ne amoon naa sa numéro jëloon naa ko xaaral ma xool la waaye wax dëgg yàlla yàlla jàppale ñu sant yàlla billahi maa ngi waxante nit ñi normal fi mu toll nii gëmewuma ko sax nag wallaahi gëmewuma ko ndax dafa nekk lu métti métti ci man moom toog di ko xalaat ko xalaat bu baax sax waaye sant yàlla yàlla na leen yàlla jàppale daal yàlla na leen yàlla fay gën a wéral cëriñ kontaan naa nekk leen ci jàmm ju bari jërëjëf. waaw jërëjëf Membrane euh, wàllu mauvaise haleine moom amul mag amul ndaw amul jigéen ku nekk mën na laa dal nit day am doom sax di xëñ ci xetu mais sentir xet bare na ñu mu dal man tout le temps dama koy yaay ma de sama doom xetu gémminam neexul ñenn ñi parfois la ñi itim ci ndax brosse normalement day yàq sa bañ sa bañ day dem ba day jaune day xal day dem ba tek beur ñi xamanteni duñu soccu duñu bros seen bañ ndax amna na ñi xamanteni ni sax rat ak ngelaw sheytane mo leen ko def ñen ñi itim liggey ndax nit dina nek ci barab di liggey wax deug yalla nit ñi bëgg ko jublu ko mais day na waar am ñoo xam lay yóbbu ci sëriñ sané la nga xamni ñi la jublu won ñeppay dëdd won la ginaaw à tout moment fo tok sa yaram day xéñ te loolu itim nek na li nga xamanteni ni loolu itim yépp mam dafa nek li nga xamanteni lu nit ñi di dundula ndax buñ ko waxulit ki tok diñu sétante gis ci bopam du ci xam dara te du xam sax fan la jëm kon ñun exactement loolu lañ ci jublu pour informer pour sensibiliser pour dimbali itam ñenn ñi nga xamanteni dañu soxla dimbal waaw ndax ñëpp yamuñu bu yàpp yëpp yemee ne ras yenn yàpp yi paakatu ci am yoon lamine baara fall ziar naa la ziar naa la bu wér wér wér man la ndey sekk xam naa di ma fàtte de man la cousine mami bi mami job, si kab mbaaw man la fa mami job, indi indi woon pour nga fajal ma problème ma wes alen bi affaire yi maa doon def traitement bi li jégalu ci gëj a déggante bi de dama nekkatul si kaam nag Kaolack laay sëy moo tax nga gëj maa dégg maa ngi sëy Kaolack dafa fàttalikoo si kooru daaw lu tombé loon de kooru bu ma la wax naan man lii est ce que bëgguma koo am <laughs> ndeysaan nga ñaanal mu naan ma bu neexee yàlla kooru déwén di nga am koo taajoon dëgg suñu borom nangu na sa ñaan wax dëgg yàlla naa ko suñu borom nangu na sa ñaan wax dëgg yàlla maa ngi nii Kaolack laay sëy moo tax sax nga gëj maa gis foofu. mais moom traitement bi moom wax dëgg yàlla macha allah dam lay sant di la gërëm ndaxte métitu biir bi moo ma gënoon sonal sax que sama mauvaise haleine bi métitu biir bi mais depuis na may jox garab yi may naan def traitement bi normal ak surtout paj yeeg yooyu sax wax dëgg yàlla moom gis naa si tan bu baax a baax mais incha allah nii maa ngi nii kaw ndaxte dama nekk nii en sax dama nekk jigéen bu wéru mais bis bu ma yàlla may omi sedd moom ba mu ñëwaat Sicap ba mu ñëw dakaar bu neexee yàlla dinaa def la tout ba ñëw fa incha allah bu mu fàtte si ñaan jërëjëf Aliou jéggul nag si gëj a déggante bi di jéggalu bu wér a ñaan ngeen nangu nag xam nga jëkkër rek moom <laughs> bu xasee am moom yu bëri dootoo ko lii ñaan ngeen nangu ba pare damaa gis tan rek nga xam naa ne bu ma affaire sonaloon ba léegi chaque jour nga ne ma naam daraame est-ce que kon sax su boobaa dinaa am jëkkër. <laughs> ndax tiitoon naa jaaxle woon naa jërëjëf yal na la suñu borom fay mais bu neexee yàlla bu ma ñëwee Dakar dinaa fi ñëw incha allah waa kay jërëjëf. jërëjëf Mame Rane. Euh, ci wàllu li nga laaj léegi muy wàllu traitement bi. traitement bu général lañ la jox. traitement bu complet la moom traitement bi du bàyyi dara daf la koy fajal ci gémmiñ gi fajal la ko ci put bi fajal fajal la ko ci amygdale fajal la ko ci rab ngelaw seytaane ci wàllu liggéey maanaam du ñu bàyyi dara traitement général la traitement complet la incha allahu rabbi contacter leen ñu daañ leen wax nu ñu koy fajee généralement dañ ciy def tawféex xéewal lañ ci def bi nga xamante ni forfaitaire am na livraison gratuite ndax du ñëpp mën a ñëw ci ñun am ñoo xam te ni wax dëgg yàlla ay kilifa lañu wala seen tànk dafa diis mënuñoo ñëw fu ñu mën a nekk daañ leen fu mën a fekk livrer leen seen traitement ci sutura ñu àmbale ko jox suñu chauffeur mu indi lako ba sa kër ak fo mëna nek ci Sénégal ci adina mën nañ xefé ba nga jotti inshallah rabbi am ñoo xamanteni nak ni nag mën nañu ñëw comme ñu nekk Dakar wala ñu jege ñoñu mën nañu ñëw def consultation ndax niñ leen koy defalee c'est un traitement forfaitaire ci biir forfait bi da ngay amalé consultation gratuite wala nga am livraison gratuite kon nak ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm ñoo ñaanal képp ki nga xamanteni rek am nga fièvre bi ñuy wax jëm ñu contacter ñu wax la forfait bi ñaata la bi nga xam di nga ci am consultation am ci livraison lepp nekk ci biir jox la traitement bi xamanteni du bàyyi dara ñu bëri nak dañ koy faj ci gémmin biir ñu bëri dañ koy faj ci ci put bàyyi nangam gis na ci nga xamanteni ni sax wekki nañu lu ëpp juróom-ñaari bëñ wala juróom-ñetti bëñ bëñ bu ñu dindi yaakaar ne xet bi la te fekk du ci bëñ yi ñenn ñi ci làmmiñ bi lañ koy a nekk ci biir a biir a biir a kon nag lu mu ci mënti doon incha allahu rabbi danañ leen ci mën a jàppale defal leen ci consultation may leen ci garab jàppale leen ci ba loolu dañ ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ak aminu Serigne Touba. képp ki nga xamante ni rek euh, soxla woon nañu mën na woote ci numéro yi ci ban écran bi euh, incha allahu rabbi di 77 169 45 45 77 169 45 45. du ma consulter Touba mais am nañ fa sama kër a ngi Touba sama këru bop mi ngi Jannatu Mahwa ci wetu hôpitalu Matlaboul fawzeni danaka ñenti mbedd la ak Matlaboul fawzeni numéro Touba bi di 76 283 98 69 ñi dëkk Touba ak liko wër bo leen ñëwé Jannatu Mahwa danañ leen ci mëna a dimbali bu baax a baax a baax inshallah rabbi même bu dee da nga nekk Touba war def consultation dañ leen ko mëna defal par téléphone Dakar dong laay defé consultation Touba nak ak région yi ku ko soxla daañu la ko mën a livrer incha allah jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum Serigne Bara Fall man la Ibrahima Diallo euh, dëkk Guinée Conakry euh, wallahi sa garab yi ba ma ko jëlee ba léegi maa ngi sant yàlla mauvaise haleine bi euh, moo tax ba ma gisee si internet bi ma gis sama mbokk bu nekk Sénégal foofu. Euh, mo ma jox ko sa numéro a mu ko ba mu ko yóbbante ba léegi euh, instant yi nii macha allah sant naa la gërëm naa la euh, bu baax a baax baax baax parce que mun ma nekk ci nit ñi ay maxi rek laa doon sol aussi tamit sama biir da doon métti yooyu noonu mais sant naa la daal gërëm naa la maa ngi lay ziare xam naa ni sama mbokk Guinée yi nekk fii nii si Guinée dinaa lay yabal foofu ñëw foofu incha allah rabbi kontaan naa bu baax a baax salaamaaleykum.